seetaan si Dakar live si sans limite point com ak si li nga xam rek moom mooy Sénégal 7 euh, déplacé wu nañ ba fi nga xamante ni moom mooy fii si diwaanu Kaolack euh, rawatina na quartier bu ñuy wax Boustan 2 fii nag la Mollah Morgun dëkk. ginnaaw ay coow yoo xamante ni ñu ngi ko doon dégg jëmale ko nag si tàkk-tàkk yoo xamante ni amoon na si kër gi. loolu moo waral Dakar Live euh, Sénégal 7 point com ak sans limite daal di doxantu ba fii si diwaanu Kaolack ngir rek mën a daal di taataan xibaar ni mel euh, su ko defee rek kenn xam exactement yëfi nan la tëddee woon. si noonu sax ñu ngi taxaw ak kenn koo xamante ni jégalool kii di Mollah Morgun euh, nekk également. taaw si kër gi mën nañu wax sax ne moom moo uuf njaboot gi jamono ji di euh, Youssou Niass Youssou ñu ngi lay nuyu si Dakar Live si Sans Limite ak si senegal 7 ñu bàyyi la nga nuyu ak ñu lay seetaan. waaw xanaa dañuy wax asalaamaaleykum di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di rafetlu seen teewaay fii euh, di ci kontaan lool. bu fekkee ne teewaayu ñëw taxaw si seen mbokk la wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu waa ñun nag euh, petit frère Mora lañ man ma bokk ci euh, man ak moom ñoo bokk lépp man maa topp ci moom waaw loolu lañ ci bëggoon a d'accord Youssou li ñu lay njëkk laaj moom mooy ginnaaw jëye ji bu mu amee euh, famille bi taxawaayam naka la demee waaw mooy comme ni ngeen ko déggee rek euh, li fi xew samedi la fi xew ci guddi aux environs de deux heures du matin euh, ci la ay sàmba booy ñëw fii ci kër gi euh, d'après li ma dégg ñu ngi yoroon oto oto bu ñu immatriculé dégg naa administration leeru ma nag mais loolu laa dégg ne ci biir oto bi ci la ñu defoon ay pneu bi ñu ñëwee ñu parcourir kër gi yëpp euh, miine ko ak ay pneu euh, ñu ngi yoroon essence aussi après pneu yëpp ñu def ci essence ba mu tooy euh, jë jël zone stratégique yi fu mel ni bunt nga xam ne nit bu doon daw ci bunt bi lay jaar jaar ci buntu garage bi fenêtre yi nga xam ne bu bu saxaar si duggee mën na asphyxier ñi fa nekk indi leen ay problème ak fépp foo xam ne lu fu mën a dugal saxaar la ci biir kër gi ñu teg fa ay pneu taal ko léegi noonu lañ ko noonu lañ def malheureusement euh, wala heureusement ñi fi nekkoon ay jigéen ñoo fi newoon ay xale yu ndaw ak euh, paa bi ak euh, sama benn frère rek moo fi nekkoon benn góor daal moo fi nekkoon mën nañu wax léegi bi affaire bi di am sunu dëkkandoo bi nekk ci kër gi en face la xajam doon yuuxu lu bari mu xam ne am na lu xew bi mu génnee eh, gis na ay nit yoo xam ne ils étaient armés ci la kenn ki dóor ay balle de sommation ci kaw mu daw duggaat ci biir ba ñu pare ñoom seen li ñu waroon def ci la ba taal ba taal li ñu waroon taal yëpp ba fi commencé jax ñoom ñu taal seen oto dem après ci la ci la ñu waa koñ bi waa kër gi tamit yëg ko ñi ñi jóg xamuñ fu ñuy jaar noonu daal la ñu def nul tete ñoom seen intervention rapide euh, kon musiba munoon na am ci kër gi ndax niñ ko ni ñu ni ñu ko defee woon defoon nañ ko d'une telle manière que pour nit génnee ci bi ci biir rëcc génn ci biti yombul woon mm-hmm. mais bi ñuy woo sapeur pompier aussi sapeur bi muy ñëw fekk na koñ bi ak euh, ni ñu mobiliser woo ñëpp wax dëgg yàlla ñëpp jàpp ci ba jëyee ji daal euh, àggul fa ko ñi ko bëggoon euh, àggale àgg. Mhm. waaw d'accord wax nga ko ci say biir wax ay Samba booy ñëw daal di def euh, jëf ji mën nañoo xam fan ak fan moo jot am ay tàkk-tàkk ginnaaw ba ñu defee jëf jooju ba noppi. waaw kër gi moom li ko wër lépp ay tàkk-tàkk la comme ni ngeen ko jëlee ci image yi sànq parce que fii yëpp dañ ko rangale woon ay pneu. te pneu moom boo taalee rek yaa ngi gis ba ci garab gi bâtiment bi ci gannaaw tamit. Euh, façade boobu gis ngeen tàkk yi dafa jóg ba ca kaw waaw kon ñoom moom de visé woon nañ kër gi yëpp peut-être accès bi ci biir moo yombul woon ak ni kër gi bindee bindoo mais bu fekkoon ne am nañ accès ci biir aussi ni ñu def ci biti lañuy def ci biir mais comme ay samba booy la ñu woon te dañuy nëbbatu te bëgguñu aussi te koñ bi aussi am nañ solidarité bi fi am bu fekkoon ne yëg nañ leen amaana mën nañ ñu dal seen kaw walla dara loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo tax xam naa ne àgguñu ci biir mais lépp li war kër gi moom taal nañ ko bu booyaloon nañ ko. d'accord lan nga jàpp ne moom moo waral ñi def jëf joojee ñëw euh, daal di euh, cibler seen kër gi romb kër yëpp ngir mën a taal kër gi lan nga jàpp ne moo nekk ci ginnaaw loolu. man pour man jàpp ma ne dara am na rien loo xam ne war na mën a justifier ñu ñëw ci kër jàmbur koo xam ne ba muy tabax këram. après quarante ans de dur labeur mu taxawal édifice bu tool nii dugal ci njabootam dugal ci ay doomam nekk fekk ay doomam ak i sëtam ay nit jóg ak motif bu ñu mën a wax ñëw ne dañuy dañuy dañuy rey nit ñi ci biir dañuy taal nit ñi ci biir loolu moom gi xal mënuma xalaat ne am na motif bu war a tax parce que bu fekkee ne ne fii dañu wax ne c'est la maison familiale de Mola Morgan mhm. Mola Morgan moomul kër gi fii la nekkoon comme ñun ni ñu fi nekkee moom yàlla dogal na sax jabaram nekku fi doomam nekku fi te lee mu nekk di ko def am na droit nekk ci son combat boo bëggee laal famille waaw bëggee laal nit ki faw dem ci mais mais ci dëkk bu bu yoon am mhm. nit amul droit mhm. euh, un adulte la Mor Mollah c'est un adulte mhm. il est responsable de ses actes il est responsable de tout ce qu'il fait papaam mënut responsable ci li Mollah Morgun di def nit mënul dem ci kër jaamur sàcc ñu dem ne dañuy jàpp papaam parce que xale bi moo sàcc nit mënul dem ci kër jaamur rey nit ñu ne dañuy dem jàpp yaayam parce que doomam moo rey nit loolu xam nga ne ci république la ñu ne te loolu nekkul moom moo ñu régir kon amul benn motif bu valable boo xam ne moom moo war a wane ne ay samba booy war nañ ñëw di lakk kër papa Mola Morgan parce que Mola Morgan dafa def lii wala dafa jël position bi wala ta dafa taxawee nii. waaw mooy li ma la wax rek man moom mu mënuma ci am njort. waaw sama position peut-être Mollah Morgun lañ wax. xaw ma nag Mollah Morgun lu ñu jàpp ne loolu la def wala loolu la wax mais lu mu wax moom la engagé lu mu def moom la engage amul benn motif bu valable man bu ma mën a avancé ne moo war a tax ñu ñëw attaquer la maison familiale de Mollah Morgun. Mmh. d'accord d'après les yi nga xam ne am nañu ko euh, démb ñi ngi déglu benn soi-disant xam petit frère am na ou pas mu génn di wax ci relation bi Mollah Morgun am ak yaayam ak papaam nee nañ sax. d'après kooku li mu wax moom mooy papaam dafa beddi Mollah Morgun da ngay dëggal loolu. waaw Mollah Morgun papaam munu ko beddi xam nga man Mollah Morgun euh, moo ma mag maa topp ci moom hmm, kër gi ñun benn lañu ñun ñi bokk ndey ak baay ak ñi bokk baay démb je pense que déglu ngeen ci live am taawu papaam mu wax position bi mu am. te kooku ñun mooy suñu xalif te dégguma benn yoon mu wax wax ju ñaaw ci kenn wala ci famille bi ñun ñoo bokk lépp musu ñu am benn problème d'ailleurs ku ci am problème hormis combat am boobu noonu da nga ko koy wax lu mu la mën a jàppalee mu jàppalee la man bi may takk soxna xaalis bu bëri la yëkkati jox ma ko loolu suñu digg ak keneen ak keneen ak keneen loolu nag bokkul ak Mola Morgan peut-être ñun Mouhamadou Niass bi ñu bi ñu bi nga xam ne moom lañ bokkal nit la comme nit ñëpp di taxaw ay rakkam di taxaw papam di taxaw yaayam loolu laa xam ci kër gi xaw ma nag leneen loo xam ne keneen xam na ko wala keneen mu ngi koy wax te bu amoon tamit euh, su ma ci mënta wax dëgg ma noppi ci parce man kenn duma dugal ci loo xam ne euh, ko mhm. ginnaaw tàkk-tàkk yi si 2 heures du matin comme ni nga ko waxee ndax am nañ si jot a gaañu si biir euh, voilà lan nga ñu mën a tontu si loolu. waaw yàlla dimbali nañu mooy li ma la wax rek nul était l' intervention rapide des des ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk suñu ay dëkkandoo euh, kon le pire allait sa produire parce que euh, ni ko gars yi defee woon ak tàkk bi fi mu tolloon. bu fekkutoon sunu dëkkandoo yi ak rapidité d' exécution bi ñu def ba ba fay taal bi kon jéye mënoon na am waaw mais yàlla dimbali nañu ba ay ay dégâts matériels rek la ñu la ñu la ñu fi la ñu fi détecté mais amu fi kenn koo xam ne gaañu na fi à part waaw mooy moom mooy li ngeen gis waa peut-être salle bi waa salle bi parce que jàpp-jàpp bi mu ngi doon àgg ci salle bi ak xanaa euh, traumatisme bi muy teg xale yi parce loolu aussi mënuñ ko fàtte c'est un ay xale yu ndaw yoo xam ne waaw mooy comme ni niñ ko doon décrire léegi loolu dina des ci seen xel lu yàgg dina des ci seen xol xale yi yi fi nekk di jàng di ay xale yu ndaw est-ce que di buñ tëddatee sax duñu xalaat ne lu mel noonu mën a dalaat seen kaw te loolu aussi euh, ñun ñu ngi ci et ñu ngi ci un état de droit mhm. fii ñun ñëpp le garant de notre sécurité c'est le président de la République c'est l'État du Sénégal mhm. moom la ñuy wax mu garantir sécurité innocent yi nga xam ne seen yoon nekkul ci combat seen yoon nekkul ci bataay seen yoon nekkul ci parti politique ñii di ay xale war a concentré wu jàng wala am bien-être am Euh, euh, équilibre ci lépp li ñuy def ñu leen di traumatiser noonu di bàyyi ay séquelles ci seen xel loolu vraiment man maa ngi koy ñaawlu te di ci woo ñi nga xam ne ñoo garantir suñu sécurité ñu xam ne ñun nous faisons partie de la population nu sommes des Sénégalais à part entière et nous avons le droit d'être protégés par cet État mmh. nous nous sommes nous avons le droit d'être protégés par euh, fii ñi nga xam ne fii la ñu dëkk muy Sénégal. d'accord euh, beneen question bi ma lay laaj moom mooy dégg nañ laa démb tey ci suba sax je peux dire mu naan euh, lépp li nga xam ne yoon laaj na ko dinañ ko def dina saisir tamit ay avocat li xew ni nekkul woon misaal pour mu bàyyi li muy def ndax dafay continuer ou pas. waa xam nga loolu wax dëgg yàlla moom moom moo ko mën mm-hmm. moom moo ko parce que li ma leen waxoon léegi moo laa Mollah c'est un adulte averti du xale bu ndaw. Euh, nee na lii c'est un de principe qu'il est en train de mener depuis des années je pense pas que man mën naa ko bàyyiloo te wax na ko yéen a ngi dégg parce que yéen a ma gën a topp Mollah yéen da ngeen di topp Mollah ay live am dégg ngeen mu ne li muy def ni c'est un de principe nul mënut a fexe ba mu changer combat bi nul mënut a fexe ba mu bàyyi combat bi kon loolu moom moom moo décidé di combattre à sa manière nee na moom combat bi selon moom da kay def pour le peuple sénégalais waaw loolu moom moom maanaam moom ci jëmmi boppam moom moo ci mën a wax. alors pour rebondir un peu sama laaj jëmale ko si euh, sama naataango bi lim la wax tout à l'heure jëmale ko si ay avocat ndax déglu nañ sax moo laa bi yëf xewee bi mu génnee dafa ne euh, ki ne si ndorteel wala ki ne si ginnaaw loolu yëpp mooy kii di général Moussa Fall euh, commandant de la gendarmerie nationale moom moo commandé mbir mi ndax yéen si mbirum yoon jot ngeen a saisir ngir xam euh, situer les responsabilités ñi nga xam ne ñoo def jëf ci. waaw loolu Mollah moom moom mën na mën na mën na wax loolu loolu c'est son son c'est son droit le le plus légitime mu wax ne moom kii moo ko commandité wala kii man te man nekkuma ci loolu vraiment man duma activiste euh, aussi euh, loolu mënuma ko wax mais li may wax daal mooy mbir bu xewee à normal Euh, di ngeen def li ngeen ci war a def mooy entamer des procédures euh, on a saisi un huissier mu constater les dégâts matériels euh, def nañ aussi des plaintes yoo xam ne war nañ ko yóbbu au niveau du commandant de brigade euh, ak commissariat central ak euh, procureur de la république léegi nag loolu moom après li ci des ñoom ñiy kilifa yi ñoom ñoo ko war a def mais ñun li ñu war a def def nañ ko parce que li ma leen wax sànq nous sommes dans nous sommes un état de droit mm-hmm. te am na ay lois et règlements yoo xam ne ñoom ñoo euh, régir sunu nekk mm-hmm. waaw te comme lii nii am na te mm-hmm. lii c'est un acte criminel man noonu laa ko mën a qualifier moo tax euh, liñ ci war a def daal ci wàllu yoon def nañ ko ndax amu leen regret si li Mor Laa Moog nekkee euh, donc fële sa Canada donte mag la yaa ngi koy wax il est euh, responsable de ses euh, par rapport ak le fait que muy attaqué nguur gi muy def ay live donc di jël ay kàddu di ko jëmale si si gouvernement bi ak ay autorité ndax yéen loolu amu leen si benn regret. waaw xam nga man man wax dëgg yàlla damay damay respecter nit ñi seen i principe. Mm. respecter nit ñi seen i ay gëm-gëm. Mm. respecter nit ñi seeni ay pas-pas. man noonu laa yaroo te loolu laa xam nit ki bëgg a doon mm, murit na doon murit ki bëgg a doon tiijaan na doon tijaan ki bëggul doon jullit na doon leneen li ko sob te ku nekk may jàmm sa morom ñu dund loolu mooy république te man loolu laa jàpp moo tax man euh, am ci regret wala ñàkk ci am regret man vraiment dama ko bàyyee ak position am bàyyee ko ak ay principe am. en tant que petit frère de Mollah ban message nga koy lancer. waaw mu mu mu maanaam lu muy def rek na ko natt waaw na ko natt ba mu ba mu xam ne moom il est responsable de ses loolu laa xam ne daal dinaa ko ko wax am na ci nag loo xam ne bu ñu koy waxtaan tubaab dafa ne le linge le linge sale se lave en famille bu fekkee ne am na loo xam ne lu ma koy war a yokk la wala lu may war a yokk loolu je pense pas que duma taxaw devant des caméras di ko wax jërëjëf. d'accord si daal mën a jàpp si dégâts yi mooy amul kenn koo xamante ni gaañu gaañu na si donc des dégâts matériels lañ fi dañ fi nemmeeku daal si tënk. waaw waaw waaw ci tënk loolu la comme ni ñu ko waxee sànq rek ay dégâts matériels ñoom ñoom ñoom ñoo fi am euh, mais amu ci kenn ku ci gaañu à part euh, traumatisme yi mu teg xale yi waaw. jërëjëf wasalaam jërëjëf jërëjëf.